Je pense très bien qu'aujourd'hui, l'État devrait accompagner ses victimes par rapport à la prise en charge médicale, par rapport à la prise en charge sociale, et ainsi, ainsi de suite. On a tant de questions qu'on voudrait que vraiment vous nous éclairiez afin que l'opinion puisse en éclairer. La parole est à notre collègue Cheikh Chorombake. Suivi de Khadijé.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 jàpp naa ne ni ko honorable député yi fi jaar yépp waxee leer na Sénégal yépp mooy Pastef demandé wul dara te li bëy daan dunde ba sax sikkim bu ca continuer mën na ko yor ba muy faatu loolu nañuy dégg wolof xam nañ ko yàlla suturaal nañu ba ñu dund mille 2021 ba léegi amul benn Sénégalais bu ump te bi mu fi mujjee ñëw question bi ma la posé woon mooy suñ mbokk détenus yi nga xamante ni ay détenus politique la ñu jàpp leen tëj leen foofu ci njaareem bi nga may répondre da nga ne woon ay détenus politique amul senegal te jàpp naa ne it loolu looy woy di wax la ba léegi waaye Sénégal gis nañ fan yii yëpp libération bi ñu fi bëri ak ku ci nekk bi nga génne li nga wax mooy wax sénégalais yi rek ne bi yàlla suturaalee 2021 ba léegi ay manifestation politique di am ay nit di faat depuis boobu ba léegi Pastef moo mas a taxaw ci côté famille famille détenus yi di taxaw ci famille victime yi kenn fekku leen kon su ma gisee ay nit taxaw fii mel ne dañoo bëgg a nekk avocat détenu yi wala dañoo bëgg a nekk avocat victime yi man ay ree daf may jàppal damay am kert ndax amul benn parti politique bu nekk Sénégal boo xamante ni xam nga benn famille victime politique fu mu Sénégal ku dul Pastef amul benn parti politique Sénégal boo xamante ni xam nga benn famille ñoo xam dañ leen a rey ci manifestation yi ku dul kon ñun li ñu dund kenn fekkuñu ci te ni ko honorable la Diallo waxee léegi moo ci nekk yàlla suturaal nañu ñun au niveau département Mbacké amoon nañ soixante dix huit prisonniers politiques weer wu dee ñu ci doon dépensé huit cent cinquante mille francs te kenn fekku ci Pastef ñoo ko doon yor ñi faatu ci manifestation yi bu doon ñaar fukk lañ juróom ñaar fukk lañ quinze yëpp Tuubaa lañ leen denc ku ci nekk bi ñu lay denc fekk naa sa rob dégg naa famille yi li ñu wax kon yàlla suturaal nañu li ñu dund ñun ñoo gën a placé wu pour wax ko ñëpp ñun ñi ay victimes lañ ndax bu dee mbokk mu faatu mbokkum deret am nañ ko ci bu dee ay détenus politique lañ ba léegi nii am na ay seen rak ak ñoo xamante ba léegi ñu ci kaso bi te génnaguñ kon li ñuy dund ñun xam nañ ko position yi Pastef mosu koo jël di dugg ci ay rondo buy jël position publiquement la koy jël te soxlawul kenn dimbali ko ci da koy jël mu wéet ak mu naqari kon jàpp naa ne question bi nga xamante ni moom la la doyen Omar Sy posé ñun question boobu lañ am ci bu ñu lay posé mooy ndax ñi nga xamante ni ñoo génn di manifesté wu te constitution Sénégal wax ne comme neex am nga droit manifesté loolu la neex ndax ñi leen rey dañoo bokk loi bi da def ne protection la protection ak torture loolu bu leeree suñu bopp ñun Pastef dinañ jël suñu potion te duñ ko nëbb duñ ko làq dañ ko jël publiquement sénégalais yi xam ne lii mooy position Pastef wasalaamaaleykum wa rahmatullah merci chers collègues la parole est à notre collègue Khady Dieye suivi de Fatoumata Dabo asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu monsieur le président maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ministre yi les chers collègues maa ngi leen di nuyu di wax nag ni man dama naan alhamdulilahi rabbil alamin ndax li tax ma di ko wax mooy madame le ministre damaa taxawoon fii ni la kasa yi fees na tëj nañu jëkkër yi tëj nañu jabar yi tëj nañu doom yi te ñoom ñëpp ñu nu bàyyi amuñu jàmm amuñu salaam sonn nañu kon tey bi leen jëlee génne leen man dama naan alhamdulilahi rabbil alamina parce que loolu laa doon ñaan yàlla may wax nag ne àddina moom nit ki dëkk ci àddina da ngay xam àddina waaye am na loo xam ne défendre ko day jafe waaye bu ñu ko tegee ci woon rek xëy na dina dina xaw a tane man na xëy na xaw ma lu bari waaye xam naa ne dee moom dafa metti ndax yàlla mi nga xam ne moo bind nit di ko joxe su ko jëlee sax te du dañ koo boom day metti te ku ñàkk doom xam nga ñàkk doom na muy demee man mi ñàkk naa sama doom yàllaa ko yóbbu waaye ba léegi dama koy yooy ndax miin ko kon nag képp koo xam ne danoo rey sa doom wala ñu rey sa jëkkër wala ñu rey sa sa sa doo loolu metti na waaye nag lu mu mënti doon day am solution man de solution bi ma doon ba dama ni gracier est-ce que amul ba léegi ndax constitution bi dafa maye grâce may laaj nag est-ce que le président Macky sàll mënul def grâce ndax grâce yaakaar naa ni mu gën a yomb ñu gracier ñi nga xam ne wax dëgg yàlla constitution bi joxe na grâce te moom rek moo ko mën a joxe nga xam ne ñun député yi suñu yoon du ci nekk ndax bu doon grâce la tey duñ toog fii di ko wax waaye loi la ñuy wax moo tax ñun député yi ñu ñëw di wax ci loi léegi nag ñi nga xam ne ñoom lañu ñu ñu àtte leen ci yoon dama ne ñu àtte leen ci yoon légalement buñ leen àttee ci yoon légalement mën lañ leen relâcher simplement nga xam ne du am benn problème dañ leen a daal léegi nag man li ma liir dañ ni jàmm moo tax ñu def jàmm dey ku ko xam di nga xëy di ko wut mu jaral la nga dem fu ne ndax jàmm mooy yor réew réew bu amul jàmm kenn du tëdd kenn du nelaw kenn du lekk kenn du noppal kon jàmm jooju nag war nañ koo mën a xool man lañ koy amee damaa bëgg ñu xam ne jàmm jii ñu ci woote mooy doxal réew mi mooy jëmale réew mi kanam kon ñun ñépp nañ leen dox ci jàmm jooju man loolu mooy li nga xam ne moom laa ci doon wax di wax nag ni problème mu CPI damay yaakaar ni moom bokkul ci dossier bi bokkul ci amnistie bi bokkul ci loolu laa yaakaar maa ngi la koy laaj madame la bi ministre ba xam nan la mën a demee ndax bokk na ci wala bokku ci di wax ni di wax ne nit ki pour mu jot liberté am dana wax danoo bëgg nit ki jot liberté am am sa liberté mën a wote am sa liberté mën a bokk ci élection am sa liberté mën a bokk ci li nga xam ne moom ngay wut yàlla jox la ko kon liberté boobu ñun dañ koo bëgg ndax li tax dañ koo bëgg nu amee suñu candidat bu doy ni Karim Meïssa Wade dëkk ci réew mi bokk ci réew mi war a bokk ñu ne ko yow doo bokk te ñàkk bokk gi li tax ñu wax ko ni ko yow doo bokk dafa am ñeneen ñoo xam ne am nan ko te bàyyi nan leen ñu bokk